واجعل مقامي مقام المرتدى أناس في خدمة mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc si ci Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadou Mourtala ñëw nag ci Cheikh Mouhamadul Fadal moom Cheikh Mouhamadou Mourtada bis bi nga xam ne. jàmbaari lislaam ja góor yàlla Cheikh Mahamadou Mourtala daana ko woote ca deqale di ko wooteel lislaam bépp waaye di ko wooteel njabootug maam maharam gépp kookee bisam moo jegewaat muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali borom daara ju mag ja taal jàngu boo seen mu tàkk ci réew mi rek foofee la jële woon ak matam bis boobu nag moo war a delsiwaat war a nekk juróomi fan juróom-ñeenti fan ci weeru février bii di ñëw di amee ca deqale moo tax Cheikh Mahamadul Fadal toog fii ak bokk yi nga xam ne ñoom la ko seqal fas yéene woote bis boobu wooteel ko sëriñ Touba waaye wooteel ko lislaam bépp tàmbalee ci kër yi buntu kër yi diine yëpp benn buntu kër desut. moo tax Serigne Moustapha wax ne naa jottaliwaat ni nga xam ne moomit fas na yéene ànd ko ak Serigne Fallilou mii ci liggéey bu rëy bii suñu borom teg ci loxoom muy deqale ak la ca aju yëpp liggéey li may wax ko ne ko xam xam nga ko. mu wax ne fas na yéene nekk ci wetam lépp lu muy nekk mu nekk ci ak moom nekk ci ak moom ci jëf waaye nekk ci ak moom moo tax mu ne am na ci aw jàppiin bu muy jàpp jàpp jàppale sëñ Fallu waaye jàppale boppam ndax ñoo ci yem ci bis bi eh, ak ci taxawaayam foofu ci deqali mu ne kon nañ am benn yoon boo xam ne ginnaaw moom pas-pasu boppam li nga xam ne dana ko Cheikh ak Serigne Fallilou ci liggéey bi waaye mu bëgg cee boole euh, ñi nga xam ne ñëpp am nañ yéene mu taxaw wax ak ñoom ba ñoom ñu jàpp ci aw jàppiin jaarale ko ci ay daayira mu wax ne daayira bi nga xam ne moo njëkk a sosu fii te Serigne Moustapha sos ko fii sosal ko maam Anta Ndiaye Mbacke ak Mamor Anta Sali Mbacke ka ci jiitu fii ci Touba nekk njiital daayira ba mooy soxna maam Anta Mbacke. mu sëñ Modou Mamoun Mbacke ci Darou Salaam mooy ki nga xam ne moo njëkk a jiite daayira Mamoun Anta Sali foofu ak Mamoun Ndiaye Mbacke fii ci Touba ak soxna maam Anta Dia sët ci sëriñ Ibrahima Dia mu wax ne bu ñu fekkee génn nañ Touba dem moom ba ca wetam fa mu dëkk ca tool ya muy commune Tooki Gaar village en nee na foofa am na fa benn day Mbàkke niñ ciy waxee itam weesuwul ku dégg suñu kàddu na jàpp na waa kër maam ab Absa ñooy wax te jaare ci man sama kàddu ginnaaw bu sëriñ Fallou defee lam ci war a def ci yëgle ba waxtaan ci ak sëriñ Cheikh moom seen Thierno maam Thierno ma nekk xombal nga xam ne mooy tey mooy xalifa maam ab sa Mbàkke ñi nga xam ne ñoo ko bokk ñépp boo ñëwee ba fu ñuy wax kër gaañi e, sëriñ Basiru ma fa waaye fii ci Touba itam sëriñ kër Baye Cheikh Coro Mbacke sëriñ Cheikh Jooreel Mbacke mi nga xam ne moo nekk baar yi te moom mooy jëwriñu kër googu sax. Cheikh Modou Moutara nee na bu ñu demee ba ci bisu deqale bi ak li ko jiitu yëpp waaye rawatina bis ba dañu jàng. istixfaar muy astaghfirullah juróom-ñaar fukki yoon muy 70 julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ci anam goo ko mane 12400 muy fukki junni ak ñaar ak ñeent téeméer jàng ayatu kursi yi cent muy ñetti junni ak téeméer jàng lexlaas muy xul huwallaahu ahad ba mu jeex 6200 muy juróom benn junni ak ñeent téeméer mu ne juróom ak ñaar téeméer juróom junni ak ñaar téeméer muy six mille deux cent. nee na ma ngi koy yëgal mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yëpp ak mboolem buntu kër Cheikh Serigne Touba yëpp bàyyiwul kenn di ko fàttali bu baax nag daayira kër Alhaaji Yanda Diop ci njiitul Serigne Mourtada Diop ak rakkam Serigne Fallou Diop. ñoo ngi koy fàttalee itam daayira Deqale Serigne Mourtada Gueye Serigne Touba Gueye daayira Njàmbur Serigne Talla Wadd soxna Aram Mbuub. daayira Miftaaxul Muna Serigne Mourtada ak Soxna Njangta Touré daayira Miftaaxul Muna Serigne Mourtada Diagne Serigne Papa Sow Serigne Madiama Ndiaye Soxna Xaar Thiam daayira waa kër Alxaaji Yand Diop ci njiitul Serigne Alioune Diop daayira Masaalikul Jinaan Pàkk ya Serigne Mourtada Diop Serigne Aliou Kane daayira Deqale Ngaay Mexe Baye Cheikh Diagne Serigne Ablaye saw ak Maam Ndaak Jité daayira Thiès El Hadji Cheikh Gaye Serigne Assane soxna Fari Diop. daayira Serigne Dame Gueye Dakar daayira Alla Diop Mbour daayira Aji Nday Ndaw Dakar ànd ko ak soxna Dior Dieng ak soxna Kumba Jenn daayira Asalem Dakar soxna Fat Sis soxna Abi Diop soxna Subulu Salaam Dakar soxna Yacine Ndiaye soxna Fat Cissé daayira Mouhamadou mbay Afrique du Sud daayira Simalo France Serigne Morfa Kumba ak soxna Kiné Niang daayira Papa Sour di taalibe yi muritoo ci kër gi daayira Taala Gueye bu deqale ak soxna Fat Diouf daayira Siin ci njiitul Ndama ak Mbóot daayira na Wañaan muy xaley deqale yi daayira waañu soxna Busa Fall soxna Binta Dia ak soxna Aram Diaw daayira soppey Serigne Mortada Mbacke Sura ci njiitul sëriñ Gora Fall ak soxna Ndey Sall daayira soxna Ñaaw Mbacke Mbacke Bari daayira na Kolle Ndiaye Mbacke Bari daayira fusti bi sarfil xasanaat ci jiitul soxna maam Marème Jaxate ak soxna maam Marème Njongu ah, di ko fàttali bu baax nag ci turu Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Mourtada Baye falu Deqale mu soxna Anta Sere sëriñ bi nee na mag soxna Ami Jonn Baye Fallou sëriñ Fallou di ko fàttalee itam sëriñ Màkka Jonn Mboora di ko fàttali nag ñi nga xamee ni si moom ñoom ndeka jekk ñoo bokk liggéey bi muy mboolem turandooy Serigne Falilou Mbacke yëpp bàyyiwu ci kenn ci kaw looloo tem soxna maam sey Mbacke nee na ma ngi koy yëgal mboolem njabootuk Serigne Falilou Mbacke yëpp di ko yëgal mboolem waa Njende bàyyiwul kenn soxna maam Mare Mbacke nee na ma ngi koy fàttali mboolem daayira yi nekk Dakar. Euh, di leen fàttali màggalug deqale ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te wér ak nun ak ci kilifteefu sunu kilifa Serigne Mamour Mbacké ak njabootug Serigne Mourtala Mbacké yëpp màggalug deqale dafa nekk bis boo xam ne Serigne Mourtala moo ma joxoon ndigal ma koy taxawu di ci ñaanal Serigne Mamour Anta Sali Mbacké ak ñu baax ñëpp ren nag dañu ko dara jaale Serigne Cheikh Absa Mbacke di kenn ci njabootu Serigne Mamour Anta Sali mbake maa ngi ko yëgal ku ma bokkal Serigne Touba ak seex yi yëpp seex Serigne Touba yëpp rawatina waa kër Cheikh Ibrahima Fall ak waa kër Serigne bi ak daaray alxuraan yi ak jàngikati xaside yi di ko yëgalit ki nga xam ne moom la yàlla def ci bopp réew mi eh, ak njabo ak ñi mu àndal ñëpp ñoo ngi leen ko yëgal ñoom itam ak mboolem ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo bokk réew mi parti réew mi yëpp daal ñoo ngi leen ko yëgal bis bi nag dana tollook gaaw juróom-ñeenti fan ci weeru février Ah, ñoo ngi koy yëgal ñépp di ko yëgal waa réew mi di ko yëgal waa bitim réew kenn ku ci nekk daal fa nga daan taxaw ñoo ngi lay yëgal di la soññ nga taxaw taxaw fa nga daan taxaw rek bis bi nag dafa doonoon bis boo xam ne bisu bis bu ñor Serigne Mourtada la ndax moom dong la amoon ci bis boo xam ne moo ko wooteel boppam daa ko taxawul boppam lu jamono xat-xat itam dana jóge fa mu nekk ñëw Touba ñëw ñëw deqale nekk fa dégg nga maam ba bis bii mu fay woote jeex mu mu door a dem ñoo ngi ñaan sunu borom yóbbu nu ci ak jàmm leen ak képp koo xam ne kii itam yaa ngi cay jàpp ak foo ca mën a jàppee rek jërëgéen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu ñoo ko déggandoo Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Mamadou Mourtala nee na woo na mbooleem buntu kër yi diiney lislaam yi bàyyiwul benn buntu kër waaye woo na it mbooleem buntu kër yi Serigne Touba yi woo it mbooleem buntu kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ni ko dégge dégg ngeen it na ko ki nga xam ne moom la yàlla teg ci boppu réew mi muy président Macky sàll ndax kat moo yore réew mi te deqale ci réew mi la bokk te ka fa tëdd ci magum réew mi la bokk. kon mi ngi ko koy yëgal di ko yëgal mbooleem ministre yi nga xam ne ñoom la ko seqal waaye képp koo xam ne yaa ngi yëngutu ci parti opposant bu mu mën a doon nee na moog yow ñoo bokk Serigne Mourtala moog yow ñoo bokk deqale moog yow ñoo bokk réew mi mi ngi ñaan daal képp koo xam ne ñëw nga deqale teg fa sa tànk wala nga jëf fa sa yéene lépp loo yóotu yàlla nga ci jot te dootoo gis lenn la naqari ci darajee xaadimu rasul barkeb Cheikh Mahamadou Mourtala ma ko doon woote wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu